maa ngi tudd Abdou su Mbacké porte-parole du petit-fils de borom Darou Mouhty tey nag dafa am benn jàngat bu mu bëgg a def bu ndaw rawat na ci màggal gi ñu génn di màggalu Darou Mouhty gi nga xam ni ginnaaw yàlla Darou Mouhty mooy deuxième capitale du mouridisme loolu moom xam naa yaakaar naa kenn du ko werante ñaare ba dem mooy dëkk diine bi nga xam ne ni ginnaaw Touba mooy dëkk bi nga xam ne diine ko diine lañ ko sance yaakaar naa daar Moussi dëkk yi nga xam sant nañ ko ngir diine yaakaar naa Darou Moussi benn ëpp ko fi tey ji si ak màggaay si ak lépp léegi nag dafa am loo xam ne nii dafa mett dañoo mett ñun waa dëkk bi di sëti borom daar mussi ñu mett ñu lool ñu bëgg see wax bëgg laaj président Macky Sall ñun waa Darou Moussi ñun lan lan lan ko def lan bëgg xam dal ndax Darou Moussi événement bu toll nii màggalu Darou Moussi un million personne di fi dajee du ndox du courant lépp dafa manqué waaw léegi gi ngeen image yéen jël ngeen image yi léegi fii nga xam ne nii sama kër la jàkkaarloo kër xalifa bi ndox tax mun sangoo mu nit ñi ko am bu ñu bëggee ndox dañuy dem rooti loolu ñu bëgg laaj léegi loolu lan mooy problème bi ñu bëgg leeral ñu ñaareel beneen tam Darou Mousty dafa am loo dafa am dafa bëri lum lum yittewoo loo xam ne nii président Macky Sall dafa bëri lu yittewoo loo xam ne lum yittewoo loo xam ne dañoo bëgg président Macky mu taxaw si yaakaar naa bii mooy suñu deuxième fois ñu koy ñu koy kaas di ko laaj ndax nee na dafay day defar dëkk diine yi léegi dëkk diine bu koy defar jàpp naa ne bu weesoo Touba amul benn dëkk bu si a jiitu Darou Moussi Darou Moussi benn bâtiment la fi defar ab bâtiment la defar waaw te loolu tax ma xanaa man mii tax bu ko sëñ bi santoon ma def ko Darou Moussi yoon la soxla ak hôpital ndax daar Moussi dëkk la boo xam ni 73 villages ñoo ko wër yëpp di fay di fajoo Darou Moussi ba fi may waxee yow nii ab hôpital mënuñu ko am ay yoon yi moom comme ni ko sëñ Basa bu Xuroos waxee Darou Moussi dafa soxla ay yoon ay yoon la soxla ay tëli la soxla te ñoom xam na ne ñun fi ñu teg ñun waa Darou Mousty ñun xam nañ ko bis ni ko wax na ba pare ba àggal bi mu waxee ba amul dara loo xam ne nii Macky Sall naan na ko pour defal ko askaru Darou Mousty loolu nag di loo xam métti nañu lool li leen xamal nag ñoom nan xam ni ñoom bu nax seen bopp population Darou Mousty kenn mënu leen nax xam nga ban population waaye Darou Mousty ñoom kenn kenn mënuñoo nax nan nan xam ni troisième mandat bi ñoom lan la loolu la leen di xaar ban tudd ko fi ba xam loolu rek lañ leen leen di dugg di leen xaar ndax ñoom ñu dara lu ñu defal te moom ba mu wut réew moom président Macky Sall ba mu wut réew mi moom heure su jaaxlee lay ñëw Darou Moussi jiwu ko lii kon jàpp naa ni bu amee benn dëkk bu muy taxaw yaakaar naa Darou Moussi kenn war ko see jiitu xabal tam population Darou nga xam ne ñu ngi wër yor seenu làmmiñ di wax dëkk bii di Darou Moussi de amul la fi Macky Sall def dara la fi Macky Sall def amul waaw population Darou Moussi moom kontaan nañu si Macky moom kontaan nañu si te élection bu fi jaar tam ñu wan ko ko ñu ko wan ko ñun ñun comme kontaan nu si yow ndax ñun ginnaaw kenn nañu waaw màggal gi taxawaay bi dafa des ndax man fi wax yow nii bëri na quartier yu fi nekk yoo xam ne nii courant waroon na faa dem demu fa dëkk bëri na dëkk bëri na quartier yoo xam ne nii ndox war na faa am amu fa kon nag loolu tamit foo ñu mettlu ko man man gisu man de gisuma état lu mu def si màggal gi gisuma ko te population bi Darou Mouhty tam gisuñu loo xam ne état def na ko si màggal gi non ñoom li ñu war a def defuñu ko ndax tey ba li ñu war a def bu ñu ko defoon tey doo gi dégg kenn ku dëkk Darou Moussi taxaw di wax naan Macky Sall lii Macky Sall lii ndax Macky loolu tax mu for leen Macky Sall a nekk nekk fépp dëkk bu dee boo gisee mu def fa ministre wala mu def fa DG li waral mooy coono ba nit ñi di jànkonteel moom ñu koy wax Macky Sall looloo tax Macky Sall teg leen fi waaye Macky Sall tegu leen fi pour ñu jël alal alalu réew mi di ko passata di leen def lu leen neex loolu taxu fee tax li leen fi tax ñu teg leen ko muy ci muy muy doo xam mënut a ñàkk muy yoon di ndox di faju ñu koy àggale président Macky Sall loolu moo tax loolu moo tax président Macky Sall fal fal leen kon nag li ñuy lancé président Macky Sall ñun askanu daal ba su ñun kontaan na moom bëgguñu si moom